نورنا من نوره نيل من الله من الوعي نورنا من نوره نيل من الشخص العجمال رضي الله تعالى ولنا بآمين يرول دول ستير بي مام مودو كرسو ak sa gopp gi ci xaroo sa jàngu bi lii nga saxal ba ñépp sax Cheikh Sil Haaj Malick Maodo japataxoon la xiyay larax la xiyay larax Maodo Maodo sujjuute defoon jabay mel ak wala nii noonu dajaay bu sax cërëm ya dootuñu sënax dootuñu sënax Cheikh Seydi El Hadji Malick Maodo radiyallahu taala su bëggoon lu ne moo am su bëggoon lu ne moo am te su bëggoon lu waaye bëggul ngir la mu xam niru du nit yax day sënax yaay Maodo ana ñu bëgg si El Hadji مدرسا كل يوم كان مدرسا في الحاج مالك بين المدارس بدانا وسودانا ممنون يا شيخنا يا سنين يا سنين fi tax lu tax ñu tiit Maodo doo dañ ci di nu ñi te doo ñëpp ci ñun subaak mara ana ñu bëgg si Alxaaji Maalik Maodo عثمان أجمال لله درك من شيخ يدل على مولاه قولا وفعلا يمن عثمان أمر نصرت أمة خير الخلق معتملا أسأل عارفة للدين أركان أركان ma Maalik waa nañu bëgg Mam Maodo waa nañu bëgg Mam Maodo Mam Maodo Maalik basal tamaalan wa ilman musriyan li faqiirin haadiyan li jahulin yabna Usmaana anañu bëgg seen Xaaji Maalik Mam Maodo yow yaay sunu njiit Maodo ana ku bëgg tax ñu ñi tëddoo jóg ci ñu subaak mara ana ñu bëgg ma Maodo maari ma Maodo fakk moom te mi aatin kab waab te ulu kamaam de karaatin yow doom yu fumaana ay Maodo wallaay Seex Seydi El Hadji Maalik kam aabidin zaahidin كم عالم ورع كم سالك واسل لولاك ما كان يموت والله سيد الحاج مالك كم تنصر العلم كم تقر الضيوف وكم فوكم كم ترني الإله كم أشقت شيطانا يا مولاي Cheikh Seydi El Hadji Malick wallaay ba Maodo yow yaay sunu njiit Maodo ndeysaan doo dañ ci dunu njiit te doo jóg ci ñun subaak mara axfir ala seydi xëfat jazaatu loolu kabairi kay yanjo dinam ni qamee لقمع الموضة